asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuy te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp euh, dañuy dellu si rek ci benn euh, xaaju taxaw seetlu lay doon wala benn jàngat bu ndaw boo xam dafa am ci réew mi doon image boo xamante ne nag image bu salte la image bu ñaaw la ci gis ko ci tundu senegaal rawatina ci xolu senegaal muy émace bi ngeen di gis nii lii mbuur la xewe ca marse ba lii nag kay meer ba mooy Cheikh Issa Sall dafa mel ni moom dafa talut askan wi ginnaaw bi mu faloo nekk meer dafa mel ni dafa xamut woon lan moo taxoon ñu fal ko ci bopp askan wi lan moo tax waa mbuur jiital ko ay nawleem ñoo xam gënu leen jàng ëpp leen ab juddu ñoom la doon xëccool ñu jël ko ngir yaakaar jun amoon ci moom lii nag day mel ni yaakaar ju tas la jàpp naa ne lii defu ko waa Mbuur dong waaye waa Sénégal gépp la ko def wala àdduna bépp fii ñu toll ci deux mille vingt quatre lii yàpp naa ne war nañ koo jomblu ci bërëb boo xamante ni dañ ne dañ fay jële ak lekk di ko dugal ci biir yi lii nu mu gën a gaawe na waa état bi jóg Ousmane songo mi jiite état bi ne jóg ñu tëj marché Mbuur ba defar ko fan yi yéen a ngi woote ba ngeen toogee ba lépp ba noppi set setal weer wu ne ngeen def ko loolu nu koy def ba noppi nag ñeneen ñu nekkoon ci APR di saboote di indi loo xamante ni émence bu ñaaw la boo xamante ni ku ko gis day seexlu Sénégal bañ Sénégal ba du fi nangoo dugal sax alalam li nga xam ne moo di ministéral ministre la santé na jéem a tëj marché mbuur ak marché yi mel ni moom yépp mu tëj leen lii émence bu ñaaw la lii ku nekk xam na ne du wàllu santé Issa Sall si Issa Sall xam na ne ay waa këram duggewuñ ca marché mbuur ba fii mu nekk nii duggewuñ fa lii nag lu ñaawa ñaaw la ci dëkk boo xamante ni la am ci développement ak kii ñu teg fa maire boo xamante ni ak sàgganam ak doyadeem ak ñàkk wan ginnaaw askan wi àgg na ci lu metti lu mel nii kii dafa mel ni ñuy dund la ñoo xam ne daf leen di rey ñu dund muy dagg seen baat ñi naaj lii kenn dara gënu koo ñaaw dara gënu koo metti lii jàpp naa ne li mu mën a indi ci jàngoro ak feebar kenn xamul nu mu toll Cheikh Issa Sall nan dem nan ko pelant lii dañ ko war a pelante sax ndax lii lu ñaaw la na gestu askan wi xam naa yow nit la ay nit a ko faloon ay nit ñooy dund ca mbuur mu war a am lum mu participer seen ñii dañuy génne seeni juute ak seeni di fay seeni droit kon warunoo am salte bu mel ni ñu bàyyi ko lii nag na ci état bi jóg kenn jiituwu ci état bi nañ ci jóg ministre de la de la santé na wax ñu tëj marché bi ba defar ko wala ñu xool nan la ñuy def lii ñaaw na lool image bu ñaaw la image bu ñaaw la lii da nga doon wax naa xam xañ na boo xamut woon image bi sax da nga naa xañ na lii ay kawlax lay doon ak ay yeneen dëkk ak yooyu waaye warta doon mbuur sax sëñ bi ah ngi taxaw fii di wax nag lii nañ ci jóg nu mu gën a gaawee ay nit ay nit lan ay mala ay mala lan waaw